ba tay ci sen scandale du jour vidéo bi dama bëgg ñu sétani ko ñëwaat. tamay wax nak né ñi ngi dégg ci radio yi ñuy ngal ngalé ko wax ñëpp ñom ñëpp dañu bokk ci ñi signé ñi naan nañ leen ci këccët ak ñëpp dañu bokk ci ñi signé wa légui man Bougane gay man lettre bobu ci bir salle bi la ko wallahi lazim Ah, ah bon. lettre bi ba ñu koy joxee man ci biir salle bi laa ko gisee mais gis nga nit boo ànd ak ay doomu aadama da ngay gore. Mm-hmm. wéet gore wéetaliku gore. Mm-hmm. ba ma gisee lettre bi ñu ne ñu dañuy signé mais dama xool lettre bi à l' instant moi j'ai signé je parce que da nga nekk ci biir say morom nekk ci say biiri ngor. Mm-hmm. ok. waaw léegi ñun li ñu bëggoon mooy ci biir processus bi ñu rencontré ñu. wax ñu delloo ñu suñuy droit. Mhm. qu'est-ce qui se passe. initiative lettre bi bind président de la république. moom si boppam ki taxaw di ngal-ngali ne moom bokkul ca ñay dem ak nangam na et puis dafa am solo. li mu li mu posté. Mhm. moom li mu posté. Mhm. Mimi Touré. lam lam wax waxul ben yoon ne intérêt général dafa ne mom kako def loolu moy kiko di génne assemblée kiko ko toroxal mhm. mais loolu problème personnel am la mhm. et pourtant ba initier lettre bi diko signer mom xamone na ne koku moko defone defoon loolu la gis nga làmmiñ bu waxul deug rek wax safar mhm. donc les choses sont très claires mais il faut pas vouloir jeter les gens en pâture parce que tout simplement bëgg nga nit ñi am fuñu la tek wala nit ñi am fuñu la nangam sangam ou quelque chose comme ça sénégalais yi dafa ñu de. Mm-hmm. merci. Mm-hmm. démb. mi ngi fi barki demb mi ngi fi barkaati demb mi ngi fi. ñoko déggando ñoko sétanando mu nekk ki nga xamné moy mooy Bougane Gueye Dany moom mu démon ci parrainage yalla dogal jallul ñom nak dañoo def sen coalition opposition bi ñu bind lettre. léegi bu mu nekk nii ko nekk mu ngi rocceeku naan yëguma lettre bi lettre bi ci biir saal bi laa ko yëgee ñoom la rekk yow dem nga parenage amoo parrainage est-ce que doo dem xool leneen walla yow sa bopp nga xool qu'est-ce que tu dois faire tu pour mieux sauter lan moo tax awma lii lan nag lan laa war a teg pour prochaine élection ma ne ci lii wala nga dem xool ci les vingt candidats ku la doy nga ànd ak moom bu donte bu fekkee intérêt réew mi moo la ñor du sa intérêt bopp yaakaar naa sur les vingt candidats au moins di nga ci am kenn koo xamante ne as tuuli as tuuti woolu nga programme am wala wóolu nga fi mu bëgg a jëme Sénégal mais Tito Rohas de son côté bu fekkee intérêt Sénégal moo leen ñor mais ñi fii rey seen bopp yëpp di wax les Mimi Touré les Bougane Gueye ak ak ñoom Abdourahmane man je pense que seen intérêt bopp kese moo leen ñor mais pas leen intérêt du Sénégal Mimi Touré moom bosam moom c'est exclu jar ta wax ni intérêt boppam moo ko ñor loolu jarta wax parce que intérêt boppam moo tax mu budde bàyyi pouvoir bi nga xam ne nekkoon na fa 12 ans poste bu ne mu occupé ko mu gedd ko daal di dem ci benn poste donc ñooñu bu ñu nee dañuy xeex parce que dañ leen recalé parce que dañ leen calé parce que dañ leen invalidé dañuy nax sénégalais yi seen bopp moo leen ñor bu fekkee ne Sénégal moo leen ñor nañu xool ci les vingt candidats ñu xool kan lañ ciy jàppale gëm nañ programme Diomaye fay nañu ànd ak moom gëm nañ programme Amadou Ba nañ ànd ak moom gëm nañ la programme de Boubacar Camara na kenn rangé wu ci ñoom te ñu xool luy avancé la suñu réew mi mais interpersonnel moo leen ñor moo tax ku nekk di réew boppam fu mu nekk lettre bi ku nekk naan man de yëguma bu ñuy bind sonk nee xaw ma signaturam sa son ay fenn ket la ñoom ñëpp a yem il faut ñu xoolaat ñu ñuy jox suñu réew mi ku mënul am parrainage demal nga toog walla nga xool ku mën am ku am parrainage nga ànd ak moom kenn terewu ko fii mais tellement intérêt bopp seen bopp da leen ñor ko boo ñu naan la le sénégalais benn Sénégal ñoru leen caisse noire gi ak le fait d'être le président de la république d'être le père de tout une nation loola leen ñor tur boobu moo leen ñor am ñoo xamante ne bu ñu falu woon tey dañuy naan fan lay commencé xamuñu donc ku amul parrainage dañ laa jox sens nga dem rattrapé waat dem xoolaat sa entourage dem xoolaat doomu aadama yi dem xoolaat sénégalais yi gëstu leen def loo xam ne dañ lay doylu dañ lay wóolu parce que nit mu ngi lay gis di naan dalaa bëgg fekk gëmu la te nit bu la gëmul du la jox kartam donc nañu xool koo xamante ne intérêt boppam ñoru ko ñu jox ko suñu réew mi ñoom lettre bii ku ci nekk yëg nga lu xew ku fi genn naan de ñom ñaar yi ñom ñep yëg nañ Mimi Touré genn na wax contrairement ak ki nga xamantene moy bugan gay mais da ngay dégg sénégalais na la man li li Mimi wax la gën gëm ko li bugan wax fu ñu ñun ak fan lañ nekk on est dans quel Sénégal bind ngeen lettre dégg na président na leen ñu déglu ko ah na ngeen ko déglu donte dañ leen jël jëlak ngeen yeen do mo leen waxtano leen waa léegi luy problème bi recalé nañ leen ku nekk du seeti lu muy def ngeen may ñu jàmm te ñu jublu ci élection yi xool concentré wu ci les vingt yi nga xam ne ñoo jàll ñoo xool ki ñu ciy doy ñu jox ko suñu réew mi sonn ci détails yi sénégalais moo war a bàyyi détails ñoom fu mu nekk nii bokkatuñu mais dañoo bëgg boole seen bopp ci mbir wi force doole maam dañuy wax si ñoom moo tax ñuy créer ces détails là on n'a pas besoin de ça ñun dañoo soxla concentré wu ne si leneen. xool vin yii kan moo ñu ci ñu jox ko réew mi.